asalaamaaleykum mbokki étoile TV Sénégal ñu ngi leen di nuyu kenn ku nekk sa tour ak sa sant di leen wax euh, tey euh, ñu ngi fii euh, ci marché bi seen émission yor yoru koor comme dab rek niñ koy defee incha allah première édition bi gis ngeen macha allah ah jàll na si jàmm ak salaam euh, ñu dajeeg suñu wóolale lu baax dajeeg suñuy artiste dajeeg ay ndaanaan waxtaan ak ñoom tey nag ñu dugg fii nga xam ne nii maanaam mooy ci marché bi war a waxtaan ak borom war a waxtaan ñi nga xam ne ñooy jaay tisi yi war a waxtaan ñi nga xam ne ñooy jaay dàll yi war a waxtaan ak ñi nga xam ne ñooy jaay yeneen ak yeneen ak yeneen kon gars yi leen ko mi ngi ñëw léegi léegi ko gisandoo loolu bonis la nee na dutee lay jënd fii ci marché bi ñu dajanteeg moom muy def ci aar lu nice di teug lu neex macha allah waa Tiwaawan bëgg ko lool. acca ñu jëm ci koor gi saa waay gisee koor gi. ah koor gi xana sant yalla rek. Mhm. Euh, comme ñu koy wor ci jàmm ak salaam. Mhm. ngi sant yalla bu baax di judd ci sayyidina muhammad wéri koor mom dafa mag mhm. nek wér bo xamanteni mo gën ci wér yi. kon bu dundé ak jàmm salaam di ko fekkee ci jàmm rek. loolu sant yalla la. Euh, comme nak met na lol lol la ci géwél nak comme un mois do teug do genn do dem fenn. lol metina mais sant yalla rek bu baax. mais yow dafa melni koor gi japp la de. non non man mom koor duma japp mom parce que man dama tam teel a euh, guddee añ daal. Mhm. bala ma agn presse ay 6 h 7 h moo war a man koor duma japp lolu lolu mo moo lay jàpp ba tax euh, du la jàpp. programme du am. Mhm. programme du am mhm. un mois nga tok sa keur di genn rek ken du la jox. lolu leena war mais yéen sen liguey rafa na te machallah allah sen liguey da leen di ñaanal seen ngeen lim euh, mu jëm ca kaw ba ngeen am seen télé bopp ci barke yonent bi bett ngeen man loolu nag. bon ñun moom a ah, waaw yaa ngi gis liggéey bee demee noonu rek. liggéey bee demee noonu liggéey bee da ngeen maa bett fekk may jënd nii sa nii pour yóbbu ma dam man dute naan eh. su wooree ba ngoon jot dute lay naan bëgguma café bëgguma meew ah. dute rek dute rek dute mooy raxas biir kon yow daa mel ni sat nga de ah.

ya boy ah. koor gi ma gis ni euh, commencement bi dafa sedd mais dañu dem ba ci bir mais dafa commencé tàng wa non la yalla suñu borom mo ñi defal lepp li ci gën rek yalla nañ ko yalla defal amin amin amiin defal ñu ko taw feex mhm. mucc ak mucc le mhm. lool la mais yow yaang ci koor gi wa maa ngi ci koor gi bu baax sax mhm. yaang ci yaa ngi góorgóorlu bu baax waaw maa ngi góorgóorlu bu baax xana bagage yu cher rek ah. waaw waaw euh, sutu njaay mi bëggoon naa ñu waxtaan ci tuuti manam euh, ba xam mi ngi dox wala njaay mom xawna cher mom mi ngi ah. dox waye xawna cher parce que panne bi sa bi yaang ki daan jënd ay 5000 3000 mille trois mille cinq cent mhm. te yaa ngi ci dem ba sept mille mhm. ak lu ko gën a ëpp lool doole daal parce que fi ñu toll nii mënoo ko jaay pot quatre cent mhm. lu pot six cent ko mën a jaay métti na daal looloo tax waaw kon euh, mën naa ni daal euh, bu bu leen autorités yi déggee ak ñi nga xam ne ñoo jege ci wàllum jënd meeg jaay moomu noonu war nañ leen cee bàyyi xel waaw war nañ cee mën a bàyyi xel jàppalañ ci bu baax parce que fi ñu toll nii dëkk bi métti na xaalis amul réew mi daal tar na daal ku ñu jàppale ñu jël waaw baax na yow euh, looy wax li nga xam ne mooy publication Tivaouane Ya, loolu lan ngay waxtaan ak ñoom xanaa sant yàlla rek te jéem a góorgóorlu te fas yéene liggéey daan doole rek mhm. ñun jigéen Sénégal ñun daan doole dong la ñu xam mhm. mais xamuñu la neen mhm. lépp luy yàq lu nekk ñun bëgguñu ko nañ daan doole yóbbu suñu kër ya dong nag loolu dong la ñu xam jërë ngeen jëf waaw ah, rajo fan euh, li mooy Étoile TV Sénégal ah, Étoile TV Sénégal yan na ko yàlla jëmale kanam jàmm ak xéewal merci beaucoup ni ma leen ko waxee léegi nii rek ah tey ñu ngi euh, ci marché bi ñëw fas yéene waxtaan ak suñu grand bi nga xam ni euh, mi ngi yëngu ci wàllum moto ñu bëgg a xam euh, réew mi ni muy doxee ñu bëgg xam tamit koor gi noonu nan lañ koy yëgee ah nan lañ koy wooree ba xam ñu ngi koy ci jàmm waaw wala déet bon grand ñu ngi ñu ngi lay siyaar bu baax. waa yaa ngi am jàmm bu baax. waaw ñu ngi sant bu baax a baax. naka koor gi. waaw ñu ngi sant yàlla bu baax a baax. sa yow daa mel ni koor gi daal jàpp. non yàlla jàpp. Hmm. waaw. ngi woor. maa ngi woor bu baax. Hmm. waaw boo koog Baye Fall yi nga xam ne mooy loolu. non non wax yàlla moom maa ngi koy jàmm bu baax a baax. Hmm. maa ngi woor bu baax mais koor gi yow dalaa jàpp parce que dama gis nga toog nii rek cool wala client ngay xaar. waaw client lay xaar parce que heure bi moom dañuy toog xaarandoo client yi rek saa heure bi moom daanaa mën naa am daanaka client yi heure bi duñ génn mais eh, ay timis jàpp gaye yooyu. Mhm. client yi dañuy génn nice wax dëgg yàlla heure yooyu moom dañu ciy gis suñ bopp bu baax a baax a baax. Ah, kon mën naa ne eh, teel a xëy yàq ko la wala. waaw teel a xëy bi moom teel a xëy moom daa baax ci liggéey. waaw teel a xëy moom suñ borom bi da ko daganal moom mhm. wax dëgg yàlla parce que dañ naan boo naajee daal da nga xaw a yaafus bu mu ëpp mhm. boo teelee jóg nag dañ naan yaay jàmbaar mhm. waaw bon bu koor gi commencé léegi nii maanaam lan nga yëg ci koor gi yow sant bu baax a baax a baax neex na sedd na wala tàng na wala waaw mën naa ne nag deux jours yi moom tàng na tàngut deux jours yi maanaam waaw tàng na tàngut parce que dañ naan góor moom moo moo war a déggoo lu ne moom lu ñëw rek war na ko mën a muñ parce que suñ borom bi mbiri suñ borom bi la daal mm. parce que tey Euh, tàngoor bi faru fenn seddaay bi faru fen parce que mën naa ne biñ ñëwee biñ xëyee presque huit heures ba ay deux heures yooyu tàng na ma instant yi nga fi ñu toll nii féex bu neex mu ngi ñëw waaw waaw ah, kon daal yow mën naa koor gi jàppagula xam naa ci kanam la lay def waaw léegi nag ñu ngi sant waa arab yi ah. waaw di waaw mooy président waa arab yi yéen di leen sant bu baax macha allah ah, kontaan nañ ci biñ jugee ci borom jagartaay dañoo ñëw fekk euh, suñu papa mu toog nii moom it di xaar client ñu bëgg waxtaan ak moom ci koor gi buñ fa jugee daal di waxtaan ak moom ci liggéey mi ngi dox wala doxul papa ñing lay nuyu ah, ñu ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan ci yalla yalla mi am jàmm yalla yalla defal na jàmm war ko mboolem julit wa ah, koor gi nak yalla ci yalla def jàmm ak salaam ah defal ko mboolem julit ngeen di sant di leen ñaanal yalla ah di wax ni alhamdulilahi rabbil alamin allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim ah dekk bi dal mom mu buñ sañan ah dañuy dekk ci koor daanaka rek koor rek mom koor gi nak mom jaamu yalla la jaamu yalla nak mom moy li gën ci doom aadama yàlla na ko yàlla defal ñu leen di sant di leen gërëm di leen ñaanal yàlla jërëjëf. waaw euh, papa ñu gis la nga ñëw droite fii euh, di toog di xaar client léegi yow ma bëggoon xam maanaam euh, client yi ñu ngi ñëw waaw wala déet. waaw ñu ngi ñëw maanaam ñëw bu ndaw rek léeg-léeg ñëw léeg-léeg duñ ñëw waaw ah, nag lay jamono noonu la doxee hmm. hmm. ah, loolu daal la demee. waaw euh, noo sentiree koor gi maanaam nan nga ko dundee loolu laa bëgg a xam tamit. waaw koor gi alhamdulilah rabbil alamin mhm. ah léegi tàng na fan yi tàng na mais tey tey ak léegi barki demu tàng na mais tubaarkàlla. Mhm. yaa loolu jàmm yàlla noonu moom loolu ñoo ànd. waaw waaw ah, jàmm yàlla il faut mu tàng man. waaw dañ daan gis koor euh, bu mosaan a ñëw maanaam day tàng jër. léegi ren koor gi ñëw ubbee ko ak sedd mais dafa dem ba ci biir dafa mel dafa tàng waaw ah, yàlla moo doxee noonu mhm. yàlla moom nu ko neex lay doxale mbiram bu ko neexee tàngal bu ko neexee seddal waaw ah, moom lépp mooy kun fa yàkkoon daal moom moom lépp ak fii mhm. mooy doxal daal mooy nu ko neexee moom moo koy doxalee. Mhm. sant mhm. mais mën naa ne Tivaouane daal watiir bi yaa ngi sant yàlla bu baax a baax. ah ñu ngi sant yàlla jàmm yàlla bu baax ndax nag moom tubaarkàlla. ñu sant di leen daanal lii moom waaw dañ ci jàpp rek baax na merce beaucoup gars yi kontaan nañ ci yéen bu baax a baax ah, li moo doonoon seen émission bi nga xam ni mooy euh, waxtaanu yor-yoru koor fii nga xam ni mooy euh, ci marché bi di bëgg ci yéen lool macha allah di kontaan bu baax a baax a baax di leen wax tey euh, lii lañ leen indiloon ba beneen yoon incha allahu rabbi ñu ak feneen ak leneen incha allah